لا إله إلا الله لا إله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi gannaaw bu nu leen nuyoo siyaare leen noo ngi fii ci pàkkum ndigal boo xam ne ndigal mosu fee bàyyi koo dellu si waat te borom te melul na borom bëgg muy kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina nu war a waajal bés bu tedd bi nga xam ne ci la ko sangam ba gërëme woon ndigal li bàyyi ko ci ki fi nekkal xaadimu rasul di seex cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg te wér jaar ci sëriñ Amdi Moustapha Fall moom sëñ Mudu mbenn Fall mii nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall borom bés bi ndigal loolu nag tàbbi ci kër sëñ Mbacke Fall nuy siyaare bu baax sëriñ Cheikh Cokke Fall mi nga xam ne moo di ab xalifaam ak njabootu sëñ Mbacke Fall gépp ñoom it nañ ko baaxoo defee rek. bi lépp ñëwee ci agsi ci ñoom sëriñ Cheikh jël lépp waxtaan ceeg ak rakam jébbal ko doomam sëriñ Ngunda Fall mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Basiru al sëriñ Basiru Fall alxuraan mi tàmbali woon bés bii te daa ko ànd ak ay bokkam ak taalibe yi bés boobu nag lañuy ñuy waajal incha allahu taala talaata ñetti fan ci weeru octobre te mooy ni ñu ko daan defee rek bés bu ñu gàmmoo bu dellusee lañuy daje fii ci euh, jannatul mahwa kër maam mu Ibrahima Fall Babul Muridina ku bés bu tedd boobu. di jottali nag ab nuyoo boo xam ne mu ngi bàyyi ko si jëwriñu Cheikh Rafal ji di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mu jëm si sangam ba di Cheikh Modou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg lool te wér di ñaanal njabootuk sëñ Touba gépp ak njabootuk boppam gi di njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag di nuyu ak di ndokkeel ak di ziar jëwriñu kër gi mu sëriñ Cheikh Fall Cokki. di ko seereel mbokki taalibe yëpp ne sant na ko gërëm na ko yu taxaw bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ànd ak moom liggéeyub Cheikh Rafal bii wax ni mi ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàggal ak dundam te wéral ko ak njaboot gi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam yëpp nag noonu ko sëriñ Omar waxee rek eh, jataay bii jataay la boo xam ne eh, jataayu fàttaliku la ndax sunu jàmbaar ja sëriñ Bassirou Fall Alxuraan moom sunu borom jaglee loon bis bi nga xam ne euh, moo ñu may lépp ndax mooy bis bi nga xam ne si la Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall euh, mu am lii nga xam ne moom la am muy bis boo xam ne ak jagle la gunu jag jagleel jëmm jooju di Serigne Bassirou Fall mu doon ko taxawu ba yàlla dogal mu egsi si loxoy njabootam gii di Serigne Ngunda Fall moom Serigne Bassirou alxuraan waaye nuy seer ni bi nee na mu ngi wax mbooloo képp koo xam ne yaa ngi teewlu sunu kàddu ne bis bii day ñi koy taxaw am nañ ci ndigalam. ñi di ko santale sëriñ Touba ak santal Cheikh Ibra Serigne Touba dellusiwaat na ca bis ba ren talaata la woon ren talaata lay doon. Cheikh Ibra waaw waaw góoru Serigne Touba la doon wut te am na ko ba tey mi ngi jëm kaw yëkkati gañu ko yëkkati nag andil ko Cheikh Mouhamadul Basir. ki ñuy dàkkantaale alxuraan te du moom dong nga mokkal alxuraan ci ñi sant Fall waaye yàlla ko ko sédd nag ndax yàlla mel noonu li nga mérito dana la ko jox te du diisoo kenn fa adu li yurit la bi mu ko saytoo nag gis ngeen ni mu ci daan sacrifice ah, léppam kon yal na ko yàlla dolli ay daraja ak i leer te sàmmal ko jaboot gi. di soññee rek ci kàddu Serigne Gora Mbodj mi nga xam ne moo jiite daayira kër Serigne Bassirou Fall alxuraan di soññ mboolem daayira yi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi ci waa daayira bi nga xam ne ñoom lay njëkk a soññ mooy waa daayira soppay maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital Serigne Mour Ndiaye Ngéejaan di soñu waa daayira diaspora ci njiital sëriñ maam Cheikh di soñu baax daayira Ndakaaru ci njiital Serigne Cheikh jóob di soñu waat bu baax daay ci yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi te bokk ci liggéey bi ci njiital sunu yaay soxna Ngone Faye di soñu baax daayira waa kër Serigne Modou karaasi la ci njiital Serigne Ibrahima Diallo di soññ bu baax magi taalibe yi nga xamante si ni danoo aju ci kër gi sëriñ bi moo ngi soññi góor ak jigéen mag ak ndaw ak mbooleem daayira yi nga xam ne danoo aju ci kër gi ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew di soññiwaat bu baax waa daayira la cinq bi nga xam ne danoo aju ci kër gi ci njiital sëriñ maam Cheikh Gueye di woo daayira Sikurla bi nga xamante si ni ci njiital sëriñ maam Cheikh Fall Sikurla mu sërif Assane Fall sëriñ bi mu ngi woo mboolem fu tuddkat yàlla nekk. ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen ndokkeel ci bi. ngërëmal Cheikh Ibrahima Fall loole moo tax ñun ñëpp ñu ñëpp ñu daje fii lépp lu am ci yoonu murit rawatina nag taalibe bis bu maam Cheikh Fall bi ak ngërëm la moo moo war a jotaay bi moo tax nag sëriñ bi woote woon fii di fàttali bis boobee ñu fas yéene koo waajal war koo amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm di di la 3 octobre ci weeru tubaab lañ ko war a def sëriñ bi nag di ci woo mboolem fo ab taalibe ne mbaa ab jullit ba bàyyiwu ci kenn woote bi nag mi ngi ci jiital ñi mu ko bokkal mu njabootu maam Cheikh Fall ndax euh, bis bi. bisub Cheikh Ibra Fall la euh, wàccuwaay bi ci sëriñ bi am la ci njabootu Cheikh Ibra gépp am loo gis nag day am jëwriñ jëwriñ ji nag yàlla daa dogal mu wàcc ci kër sëriñ Mbàkke Fall ñu war koo taxawee war a liggéey liggéey bi day yan buñ leen yan rek waaye wàccuwaay bis bi ak pas-pas bi mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall ñun ñëpp ñoo ci bokk wàccuwaay ginnaaw loolu it mboolem njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne ñoo ne ci yoon yi sëriñ bi mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn mboolem fu seex nekk ci yoonu murit sëriñ bi nee na ñëpp nem ko nem ko daan ànd ak yéen noonu rek la koy fàttali ñu ànd koog ñoom ndax xam na ni fàttiwuñ ko waaye sëñ bi sëñ bi di fàttali rek ginnaaw loolu nag mi ngi soññi ñi nga xamante ne daa bokk ñoom kër gi muy njabootu sëriñ Mbacke Fall ak eh, eh, njabootu sëriñ Mbacke Fall gi nga xam ne ñoom la bokkal kër gi nga xam liggéey bi lépp ñoom la war coono yi ñoo ko war a toggoo sëriñ bi nee na mi ngi tàllal ñëpp loxo di leen woo ñu ñëw taxawu bis bi nañ ko nañ ko daan defee ginnaaw loolu sëriñ bi nee na bis bi dara soppiku ci li ko ci jiital te gën ko jiiteel mooy njàngum alxuraan mi sëriñ bi da ko daan wax saa su ne saa bu weeru teroo daan yónnee ci daar yi ci dëkk bi képp koo xamante ne bokkoon nga ci liggéey boobu sëriñ bi nee na boo déggee kàddu gi rek jàppal ni donte ndawam ñëwu faat lañ ci daan def di ko di jàngal maam Seera Faal ak di ko ci ñaanal sëriñ bi nee na mi ngi ci soññi ñëpp bàyyiwu ci kenn képp koo xam da am na loo def ci lu baax loo xam daañu ci bis bi sëriñ bi nee na mi ngi ci soññi ñëpp bàyyiwu ci kenn sëriñ bi nee na mi ngi fàttali liggéey bi nga xam ne daa jóge kër sëriñ Tuubaa tàbbi kër Cheikh Ibra Fall muy war ma war may Tuubaa sëriñ bi nee na daa bëgg ñu sàmmale ko war ma jooju képp koo xam ne daal yaa ngi fiy ñëw sëriñ bi neena na na nga jiital ab yar ak ay teggin ak lépp luy war ma na ko indi ci dëkk bi ndax Cheikh Ibra Fall kat bu wootee waruñu faa def loo xam ni dafa wut ak ndigal kon sëriñ bi nee na mi ngi dénk boppam di dénk mbopp mboolem fa waay jógee tey ñëw sooy ñëw nga indaal ab yar ak i teggin mboolem luy am fo mbaa luy ay caaxaan mbaa loo xam ne bu suñu fa déggee daanu yedd sëriñ bi nee na bu fi kenn def loolu la sëriñ bi waxoon naa ko wax ginnaaw loolu ndékki Cheikh Rafal yi ñu daan togg bu ne suba la sëriñ bi ne ñu ngi koy waajal. sëñ ba sëñ Basiru waxee ñoom ñëpp la tàllal loxo di woo ñëpp rawatina nag njiitul réew mi président Macky Sall ak gouvernement ak ak gouverneur région Diourbel ak préfet département bu Mbacké ak sous préfet bu Ndaam ak Abdoulahad Kam mi nga xam ne moo yore maire Touba ak mboolem chef de village yi. di xam le ne rek euh, liggéey bi mooy noonu nga xam ne noonu la ko sëñ bi waxee léegi danañu waajale bés bi conférence boo xam ne seeti sëñ Mbàkke Fall yi ñoo koy organisé te nag dañ ko tuddi sëñ Adama Guèye kon nag yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Serigne Touba. la ilaha